dafa am ku ma intégré léegi ci vote bi ma xam ne kuréel bu may wax ne ma dafa mel ni Khalifa Sall bu retiré na ma ne waaw man dama dégg depuis jugement Khalifa Sall tàmm dégg ma fenn fu ñu waxee man rek defuma rek ngay man rek defuma moom man càcc na parce que man rek defuma lu man ak maa ko mas a def maire yi ko doon jàppale yëpp bu ñëwee dañ naan lii lañ daan def waaw mu ne ndax naan sàngara dëgg nekk ci dëkk bi li mu def weddiwul na moo ko def avocat yi d'accord nañ na moo ko def ñii ko doon jàppale ay maire yi jaar jàpp nañ ne ñoom ñëpp nangu nañ ne moom moo ko def waaw ki def nag ca yoon ne ku def lii lii lañ la war a àttee waaw buñ la àttee ci loolu loolu lu ci yoonu Macky Sall yow yaa def li nga li yow yaa reconnaître ne yow yaa def yow yaa ñi lay jàppale ne yow def nga waaye du man rek maa ko def am na ñeneen ñu ko doon def waaw yoon ne lii nga def nii lii moo ciy àtte ñu jaarale la foofu loolu yoonu Macky Sall lu mu ci doon moom xanaa Macky sàll moo ñàkk ay mbokk Khalifa Sall dafa sàcc li mu def sàcc la amul luñ ko mën a tuddee parce que euh, ceeb laay jënd jël xaalis def sa poos ceeb amul ki defar facture neena musul gis ceeb musul gis ki xaliss lañuy jël xaliss lañuy jël ci yow joxe xaliss xaliss lañuy jël xaalis defar facture loolu ñun ñi nga xam ne defuñu defuñu droit sax bo ñu joxe loolu ñu juger ko loolu jërul juge jënd jënd ciep wala jënd dugub wala jënd li ceeb jëndo dugub jëndo ki xaliss nga jël la ciep la jënd ki la jaay na man jaay man facture ma man musuma de xam sax na li xewna wa waa nga ne ki ni daf ma jaay doole wala juge Macky sàll moo wax ak kii wala Macky sàll moo wax ak kaa waa léegi ana droit Macky Sall li ñuy àtte nii indiwu ko fi la ko fekk loi bii nii tënk tey jàpp xalifa sàll fi la ko Macky sàll fekk cër fi la koy bàyyi alors loolu lu ci yoonu Macky Sall dama bëgg nit ñi suñuy waxtu su ñuy bàyyi lu jóg rek ñu bëgg ko yóbbu ci politique waaw dafa nii dafa naa xam nga tey lan lañ doon wax li ñu wax yëpp amul moom mu ñëw na li ma wax amul preuve yaa ngi nii waye yow d'accord nga ne yow ya jël xaliss bi d'accord nga ne facture yi ñi wax yeen yéen ko carré ci seen bir indi ko tek d'accord nga ne délit bi nii amna wa waa délit bi ñu ne ko ko def li moy atem ci atte biñ la wara atte sax moy ne ba ca gëna neew mom lañu jël utiliser ko parce que délit bi yaakaar naa juróomi at ba juróom-ñaari at ba lu kopp bi gëna soufé mom lañ ba kon affaire xaliss lañ koy topé xaliss yaakaar naa juróom million lañ ko ci laaj ci ku lek daan daanaka 2 milliards 2 milliards sénégalais nga lek ko kenn laaj le ben dërëm waa ngay yuuxu ba léegi ne dañ laa lool waa kon kan moo la tooñ yow mi daan jël xaalis réew mi kay di ci gundaanaat di ci noos yow yaa waroon a am fulla ju toll ni liñ may tuumaal def ma ko waaye maa sàcc waaye Pape Diop sàcc la keneen sàcc la keneen sàcc la waa loolu dina tax sàcc ñoom seen bopp ñoo war a am kersaay bañ a taxaw na man sàcc la bu fekkonte na doola rek la wala leneen kon Macky Sall topp leen ñoom ñoo ñëpp parce que ñoom ñëpp presse bi lañ jël bëccëg buntu tribunal la ñoom jël def nañ lu waaj def kon kay ay sàcc lañ alors dama bëgg bu ñuy wax ñuy wax ci xam-xam bu ñuy wax ñuy wax ci ci ci bañ a parparloo kii wala kaa lii may wax nii c'est pas parce que Macky Sall moo tax ma damay wax pour sénégalais yi ñun ay sénégale lañ suñu réew mii dañ koo tënk loo xam ne mag Sall président fi la ko fekk ca fi la koy bàyyi mënu koo dindi mënu koo laal waa léegi moom bu sàcc doon tey ndax mën nañ koo tëj par force xanaa nit boo koy tëj danga koy tëj ci dara ku deful dara kenn mën na koo tëj kenn mën na koo tëj alors limu bëgg mooy ñuy wax ci xam-xam ñuy wax ci xel bañu dem ci affaire yi par parlo bañu wax ci ki ki la and ak wala ki ka and ak juge la ñuy jugé Macky Sall mën naa sax xamu ko parce que Macky Sall mën naa deful droit mën naa am droit xamul sax lan lañuy atté lan la dama bëgg rek ñu baña duggal réew mi ci yaana maag mana la ci ay détails yo xam wax dara amu ci détails yo yow mi koy wax xam nga ne li wax dang koy wax rek pour indi ay ciow dang koy wax rek pour Sénégalais yi ne waaw la wala li la waye ki taxaw na ma jël weddi mën a maa jël waa léegi kooku buñ ko aatee tëj ko nga ne li tax ñu tëj ko alors man vraiment loolu euh, bëgg naa sénégalais yi ñu bàyyi ñi bañ a topp coowal man la yàlla di déglu liy xew lan la xam nga nit su fekkee da ngay yëngatu ci dara da ngaa war lépp looy def wala lépp looy wax nga saytu ko ba xam fi nga jëm fan la waaye du topp Samba wala Demba man du ma topp nii rek c'est parce que mooy sama leader ma topp ko mel ni ko gumba non su président Macky Sall defoon loo xam ne jaaduwul mais damay wax ne président li nga def nii ni ñaan nañu ji waaye loo xam ne Macky du juge même bu fekkee ne dañoo wax ne réew mi procureur ci état la dépendre mais procureur mën naa jàpp mais du tëj juge yi kay dépendre luñ ci Macky Sall li waa ji def lu yoon moo ne ku sàcc bu fekkee lislaam la ku sàcc dañoo dagg sa loxo moom tey bu fekkee jullit gi muy woot dañoo waroon dagg loxoom parce que ku sàcc ba nangu na sàcc nga lislaam dafa dagg sa loxo ci yaa reconnaître na sàcc nga alors loolu rek laa ci laa ci laa ci bëggoon a wax ci affaire affaire affaire xalifa euh, di wax rek ne juge yi li ma jàpp ci ñoom mooy ne kenn leen a fexe ba dugal leen ci ay détails ñu ngi ci war a nekk ñu ngi ci li war a liggéey ñu ngay continuer ci loolu du man maa leen di wax li ñu war a liggéey dafa fekk ne ak actualité ci réew mi ñun ay acteurs lañ bu dara xewee dañ cee war a wax waaye lu mu nekk toon loolu du ñu ci wax suñu yoon nekk ci ndax duñu juge ñun réew mi am na yoon ñi war a saytu saytu nañ ñi war a àtte àtte nañ loolu moom li mu def lañ ko àtte amuñ leneen luñ ci commentaire ci loolu. année sociale bi moom dama waxoon ne buñ tàmbalee rek comme année sociale dañuy départ départ nañ incha allah ca xam naa ne président mi ngi ci yeneen acteurs itam ñu ngi ci loolu danañ continuer incha allah di ko def comme ni ko président waxee te mooy suñu responsable ñu respecté ko mooy année sociale ñu ngi ci ca incha allah danañ fexe ba année bi yëpp nekk année sociale.